الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في turu Serigne Touba Serigne Saliou ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel di leen masawu ci coono yi ñu ngi tàmbalee ci nuyoo bi ak cant bi nga xam ne wax naa fi mu jógee mu ci Serigne Touba. wante it ci lislaam jëmale ko ci bala may egsi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation bi ak ñi taxaw taxawaay beeg taalib yi ma jiital ci autorité américaine yi nga xam ne ñoom ñoo dogal bis bi nga xam ne dañ koo def nii le vingt-huit juillet ci at bu nekk booba ak léegi man fukki juróom-ñeent lu fukki at ak lu topp ñu jàngale ko Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant ci turu ci turu yi lislaam ni ma ko waxee woon ci suba ndax sëñ Touba sañ naa wax ci lislaam sañ naa wax ci turu lislaam ci àdduna bi fii mu toll naka jekk sañoon na ko waaye mën naa am mu am ñu ca bokkal wala ñu ca seqal ko te du damay wax ne du fanatisme moo tax ñu di ko waxee waaye ci résultat la kon mën naa gërëm ak lu lu mu ci mën a def mën na ko xañ na ko def ci te lislaam te lislaam dina reconnaître loolu kon ñu ngi gërëm autorité yi tàmbalee ko ci maire yi nga xam ne mooy bu New York bi ak bu Washington ak bu Los Angeles ak Atlanta ak Chicago ak dëkk yépp yoo xam ne benn bu ci nekk am na bés boo xam ne bës sëñ Tuubaa la ko def muy loo xam ne ndamul islam ñu sant ci autorités yi ci kaw it tàmbalee ci président de la république bi di George Bush ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay kilifa ci lii nga xam ne rëy na tey ndam la di sant. ki nga xam ne mooy Mouhamed Ballo ji mi nga xam ne tamit waxtu bu nekk mag la waaye taxul mu teg bi loxoom wala tànkam jamono yi nga xam ne sëñ Mourtala mi ngi fi ba léegi si ànd ak boobu ñi nga xam ne ñoom lañ fi nekkaloon ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñoo fi nekkoon ñoo fi nekk moom te ni ma ko waxee ci lii nga xam ne dafay loo xam ne ginnaaw bu loolu amee ñu sant président de la république mi nga xam ne yabal na fi sañ Bassirou mu ñëw indi fi message boo nga xam ne moom la ñu jàng léegi sant ki nga xam ne mooy président de l' assemblée nationale yabal fi suñu sëpp sëñ Fadilou Mbacke bu sëriñ Mbacke moom itam mu ñëw taxaw fi taxawaay yu rafet ak ki nga xam ne mooy ambassadeur Paul Badji mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci suba teel la ñu ñëw ci fajar wante ñëw na aéroport teeruñu ak taalibe yi xam ne ñoom ñëpp la àndal muy góor ñi ak jigéen yooyu jamono jamono yu xat la jamono yu métti la ndax ay fajar la te loolu it yitte la te itam barab bi mu nekk xam nañ ne déplacé wu fi yombul te itam wante xam valeur bi ak xam li nga xam ne moom lu ñu fi indi loolu it ñu ngi ci gërëm ak taxawaay bu mu taxawee taalibe yi ñu ngi ko ci gërëm. di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom la ñooy njiitul daayira yi njiitu sëriñ Mbàkke Njaay ak ñi mag ñi koy jàppale yëpp ak ndaw ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi leen nekk ci seen ginnaaw di leen jàppale ci liggéey bi ak mboolem nga xam ne jóge nañ ci biti muy confédération bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ànd bokk ci liggéey bi te nekk benn te ñu def seen daje bi kenn ku ci nekk wax la nga xam ne mooy boole te lépp loo xam ne lu jàpp ne lu war a dox diggante bi bu mu niru lu dul benn loolu lépp ñoo xam ne ñoom ñu waxtaane ko ba yàlla def luy amul amul amul ñu am yàlla nañ yàlla def ñu am ci ndam tey amul sax ci ñàkk ndam li ci des it dégg nañ ci waxtaan yépp li ko tàmbalee ci Abdourahmane ak docteur Khadim Silla ak Serigne Cheikh Babou ak Serigne Moustapha Mbacké ak euh, ki nga xam ne moo fi teewal Ballo ji ak sëriñ Mbacke Ndiaye ak ki nga xam ne moo représenté le président de la République di sëñ euh, ñi ngi ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ndokkeel ci ni ñu ko waxee léegi rek ci bis bi nga xam ne bisu bisu bisu bi la euh, daanaka lu mën a wax li nga xam ne moom la sunu boroom xam-xam yi waxe ci bés bi dafa mel ne mënees naa far yam foofu ndax mbir mu ne sëñ Tuubaa léppam la ko tracé woon léppam mu bind ko rëdd ko kon mënees nañ ci nekk ba àddina tukki te bés bu set mën nga ci génne loo xam ne mën nga koo jëriñoo génne boobu nag mooy li nga xam ne képp koo xam ne yàlla may na la ngay gëstu war nga ko bàyyi xel bu baax ndax àddinaa ngi ji lépp lu nit soxla ci àdduna ci wàllu xam-xam ci wàllu économie ci wàllu développement ci wàllu bépp boo xam ne nit da koy jëfandikoo ci àdduna rawatina nag moo fi mu nga jëm boole ci nag nga mën caa am ndamul àdduna boobee ba noppi mu jaarale ci yoon boo xam ne boo demee àllaaxira dootu am jafe kon loolu ku defee noonu kon dese la lu dara moo tax may wax toujours waxtu bu ne ne sëñ Touba yal na ko yàlla sayal euh, ñu gis ne lii li nga xam ne mooy bis bi euh, nguur bu américain bi gis ne l'islam adduna bépp marché ci lislaam diine la te sunu borom moo ko wàcce ngir nit diine yëpp moo lislaam moo dajale